yàlla dogalé tamit ñu wara léral ndax depuis presque le 18 février ñu ngi attaqué attaque bo xamantene euh ñima sékkal chambre de commerce ak président yi nga xamantene ñoy ñooy organi ñoo yor organisation professionnelle yi dañ ma wax ne dégguñu fi li jar tontu kon dafa jaadu bu ñuy wax chambre de commerce ba ciow li bari bu ngeen ñëwee ñu wax leen chambre de commerce gi ni élu yaa ngi nii seen ginnaaw kon transparence kenn mënu ko wax ci lii ndax pol gi leer na ñu ko àndantee la ñu fii mën nañ koo seere kon lu waaye di wax ci biti xëy na loolu yow la concerné waaye li wérti wóor ñun ñi nga xamante ne mooy les les élus de la chambre de commerce de Dakar yàlla dogal na ñu ngi nii seen kanam kon journaliste yi dina baax ñu leeral leen le fond ndax coow li bari na lool te ñu kenn xamul li xew kon fu ñu leen waxee ne chambre de commerce dara xew fi structure yaa ngi dox département yaa ngi dox nit ñaa ngi liggéey ba pare sa yoo xëyee ñaari fa nga gis ñaari fan ñaari ñu organiser len ci presse bi ñuy tuddu chambre de commerce di wax dara dafa jaadu ñu wax len li xew li xew du dara lu moy Serigne Mboup mi nga xamantene moy président chambre de commerce bu kaw Kaolack gis nañu taxaway bu bes bu am. mom mom nga xamantene accompagner na ma bam ma accompagner ba mu tok mutul sax wéra ak mu commencer ma poser ay ay conditions ka sama waay man chambre de commerce yag na fi de. musuma nekk nag président waaye am naa fi xalaat waaye li ngay wax nii te nga koo seetaat ah ma def caaxaan mu def dëgg ba nga xamante ne coow li bari na mu yóbbu ma kër Pape Ibrahima Diagne ndax lu amul seere rek wérut Benoît Gaye mais sama seere la Pape Ibrahima sama seere la ñu toog mu ne daal li mu soxla daal mooy dafa bëgg daal en quelque sorte man ma nekk moom daal mu nekk njaati njaati dégg yi ma nekk surga bi ma ne ko kon dafa mel ni kon yow da bëgg a jiite Dakar jiite Kaolack jiite Union ndax boo may laaj bureau chambre de commerce Dakar di ma laaj ne poste secteur général bi yi may wax ni yëpp miwaat na ko ndax maa ngi ko dégg ci tefes muy wax waaye man mag laa te dara jaru ma wax sos wala wax loo xamante ni gëmuma ko di ma laaj ay post secrétaire général chambre de commerce dakaar di ma laaj ay poste euh, bureau ak secrétariat boo xamante ne moom moo koy gérer courrier di ma laaj tamit poste yi nga xamantene poste Dakar la muy conseil d'administration bi nga xamantene mom lañ am COSEC ak bu port té yoy yëpp ay bo xolé décret yi nga xamantene mo mo constituer conseil d'administration yoy bu ci né chambre de commerce de Dakar lañ wax chambre de commerce d'industrie d'agriculture de Dakar kon ay représentation la yo xamantene man dama ko fay fekk kon man laa nan laa mën a représentation yoy diko ko jox sama xarit su ma ko defee assemblée bii day daje te dañ may désavouer ma ne ko loolu te ngaa xool li ngay wax loolu mënut a nekk de boo dee sama wóolare di sama xarit laaj ma lu ma la mën a jox loolu kat moom nekkul sama loxo ba ma la koy jox ah mu ne waaw dafa war a am parce que man bi ma lay jàppalee dafa am lu ma soxla ma ne ah loolu de ba ma ko waxoon ca njëlbéen nga doo laal sama mbir ndax man bëgguma tasante kenn mu xool ma may sëgg te yi ma séqal assemblée bi kat naw naa leen naw goo xamante ne rus naa wax ci ñoom loo xamante ne dafa mel ni wax ji tegul fa mu war a tege kon loola bi nga xamante ne am na ñun ñu proposé kenn ci ñun muy mbër gu Badiane mu représenté ñu COSEC ndax noonu la daan demee ñu waxtaan ñu ne comme que suñu partenariat stratégique ak euh, ki nga xamante ne mooy port kon la yow président mun nga fa dem su ko defante ne suñu partenaire stratégique la loolu njariñ rek lay mën a doon suñu diggante ak port yeneen conseil d'administration yi ñu fi fekkoon ñi fa nekkoon ñu renouveler leen jox leen ko yi ci des ñu ngi ci liggéey boobu kon lii mooy le fond kon ku la wax ne chambre bi dafa am xeex wala chambre bi dafa am xuloo lu mooy xanaa ku amoon ay visée yoo xamante ne à l'arrivée il pensait que Ablaye Sow dina nangu ko ko manipuler gisul loolu keroog ba mu gisul loolu rek la jàmm gëj a am ñu commencé nag di wax ci chambre bi neuf mois la ñu def d' activité pareeguñu sax ñu ne def ñu ne ñun détourné nañ fi neuf mil euh, vingt milliards waaye li ma gis tey mooy comme que yow bëgg naa laa xeex naa jël nit ñi njuumaal la la nga yor ma jël ko yéen nit ñi comme que amu leen doole doole yëpp Dakar a ko yor xam nga lan mooy doole Dakar ñu ne un milliard huit cent millions la ñu am un milliard huit cent millions yóbbu na ko sax ba deux deux deux milliards deux milliards yooyu xool na ko sax ba wax ne boo ko dee seet deux milliards yooyu fukki at yii ci ginnaaw yëpp boo ko xoolee war naa nekk ñaar fukki milliards ñun ñi dañ koo détourné ñun ñi fi amagul ñun ñi fi amagul juróom-ñaari weer ñoo ko détourné xam nga amal amalgame yi ak ku xamul ni chambre de commerce di doxee boo ko déggee da ngay defe ne loolu am na ñun loolu taxuñoo jóg xulóowuñu dañuy liggéey.